waaw waxoon naa la fi ne Sonko moom mbiram du yomb. du yomb waaw mbiram du yomb. te lii ngay wax nii. Hmm. nañ ci bàyyi xel jaam yàlla yi man maa ko wax. waaw xanaa ñu jéem ko te duñ ko man waaye danañ ko jéem a fakkatal ba nga xam ne du bokk ci mbir yi. jàngeen yi asalaamaaleykum jaajëfal nañ leen bu baax a baax dellu si waat fii ci euh, GCB comme niñ ko baaxoo def ànd ceeg Serigne Modou Ladiane bu ngeen gisee li nga xam ne mooy décor bi suñ ginnaaw dootu leen laajte fan la ñu nekk ñu ngi fii ci Sébikotane ànd ak nga xam ne euh, yàgg nañ ànd ak moom ay émission yu wuute Euh, mu nekk nit koo xam ni lépp lu yëngut ci wàllu xam-xam ci wàllu kurus ci wàllu plante euh, mën nga jokkoo moom ci numéro di affiche bar écran bi li nga xam ne moom mooy itamit wàllu listixaar ak wàllum tëju wàllum samp loolu lépp daañu ci waxtaan naka noonu actualité yi nga xam ne souvent dinañ ciy ñëw euh, dinañ ci waxtaan ak moom Serigne Modou Ladiane lay wuyoo ñu bàyyi ko mu nuyoog internet yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew ñu doog a ci waxtaan yi. gannaaw bu ñu sant yàlla jul ci yonent yàlla Muhammad ñu ngi sant mboolem wàllu yàlla yi waaye ñu ngi seen bi nga xam ne seen bi leen ñu ko doon waxee rek nañ abonné te toog xaar ñu lépp loo xam ne wàllu xam-xam la waaye lépp loo xam ne lu jar askan la rek incha allah dañ ko ci seen bi ñu ngi wax ne yàlla mi nga xam moom moo ne yaddulaaw foo xëy ñu ngi ko ñaan ci kàttanam ci mbaaxam mboolem koo xam ne mi ngi seetaan émission yàlla yal na fëgg boppam ba mu delluwaat ci sogom waaye képp koo xam ne nar nañoo seytaan te bu ñëwee du jar ñu yow yàlla nga dox suñu diggante moom waaye yàlla bu ñu gis ba bu mu ñëw ci ñun waaye koo xam ne bu ñëwee dana am tawféex rek incha allah yàlla nga ubbeey ba dem ba mu gis ñu ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum mboolem ñi nga xam ne ñoo safoo seen bi incha allah amin waaleykum salaam wa wa barakaatu sëriñ la waaye sëriñ Modou tey nag ñu njëkkee ci nag bi nga xam ko indi ko fii ak ñun beneen bi tey nga changé déguisement maa ngi gis nga def lu ñuul kukk daal di jël lu weex def ca waaye toccal ko lu xonk ca kaw lan mooy sababu tey nag bi nga xam ni indi nga ko rendi ko fii waaw ñu ngi sant bu baax a baax ndax yàlla yu bëri seen chien bu seet si dañuy woo ci wax ñu bëgg li nga xam ne moom la ñu xëccoo maanaam mbir moo xam ci wàllu président la moo xam ci wàllu ministre la wala lépp lu mën a doon ci wàllu xëccoo rek incha allah danañ ko liggéey ci wàllu ci ñaari couleur boo gisee ñu gis ñu indi nag bi nga xam ne nag bu weex la am ay tojtal yoo xam ne yu xonq la loolu mooy wane mbir mi nit di sàkku ak càkk wa naka lay def ba jot te incha allah bu neexee yàlla bi ci toppit maanaam jaam yàlla yu bëri bëri bëgg koom-koom dañuy bëgg yëkkatiku waaye incha allah dañ leen di sas loo xam ne wala dañ leen digtal loo xam ne bu ñu ko defee mën na am mën na doon wala na la ay jafe-jafe parce que ki bëgg koom-koom wala bëgg a tëral ay waajuram nga laaj ko na na la jox waajuram pour mu dee wala mu jox la doomam la soxnaam wax dëgg yàlla te yàlla indi fi mbindeef yi indi fi looloo war a tey ñu indi nag bi pour won ci jaam yàlla yi lan la yàlla dëxañ ci biir nag hmm. ndax nag maanaam béjjën yi wax dëgg yàlla xam-xam la hmm. dañ ciy liggéey ci ay secret sàkkara nag bi sax dañ ciy liggéey ci wàllu kattan hmm. li nga xam moom moo di xol bi dañ ciy liggéey res bi moo di euh, wey nag wi nga xam ne dafa dëkk ci kër ñu ne kër jinne moo fa nekk wala seetaan moo fa nekk wala da ko dañ ko ragal kenn du fa dëkk suñu seetee ci weewu nag bi ñu liggéey ko loo xam ne neexee mu nekk ci kër ga te benn jafe kon daal nag lépp njariñ la ba ci geen lu ci nekk ci moom rek wax dëgg yàlla njariñ la te ay ay secret la yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala dëxëj na ko ci biir nag loolu ma waral ñu indi nag ba tey incha allah dañ am tawfiix nga xam ne mm. ñëw nañ pour dimbalante jaamu yàlla yi waaye ñëw nañ ngir défendre lépp loo xam ne li lor doomu aadama la moo xam saytaan la mm. moo xam rab la moo xam xuddaam la ak lépp loo xam ne yàlla sàkk na ko soin bi dañ wax ne yàlla lépp lu mu bind rek notale na ko doomu aadama mm-hmm. maanaam képp yàlla bind ak loo mën a doon mm-hmm. bu jinne la bu dee seytaan yàlla not na doomu ci sa kaw parce que maanaam lépp lu mu bind doomu aadama moo ci gën te it li mu jox doomu aadama ci xel jox ko ko moo jinne lu mu bëri bëri pexe lu mu bëri bëri xam-xam incha allah yow doomu aadama ci tuuti ci lu néew mën nga ci tënk incha allah bu neexee moo tax daal xam-xam daal li yunti yàlla mu amado xoon rek dama koy dëggal jamono ju nekk jar dox sol daal dox fii siin incha allah ñu ngi santaat yàlla bu baax di wax ne ñi sofoo seen bi incha allah nañ ngi noon mbokk bu leen fàtte nag am na ñaari mbir yoo xam ne sëñ euh, muy benn bi wan nañu xaalis naka lañ koy euh, luxusee wanoon a ne dinañ ci ñëw wan leen naka lañ koy defee euh, ngir tappale ak caay-caay ak njubadi nga xam ne lenn ci sëriñ yi ñu ngi koy def di ci nax askan wi euh, waaye tudd nga wàllum rab léegi ak ña nga xam dañuy daanu ay rab ak defi ay gàngri ma dégg ci lenn léegi koo xam dañ la ko indiloon nga ni bala ngaa jëflanteeg moom faaw nga jox ko lu koy calmer te ma déggoon itamit ni léeg-léeg ñu jox ku wéré di kuy faj ka wéri di jàpp kay faj dóor ba mu tëdd ci suuf lan ban pouvoir nga am bay faj ci wàllu rab yooyu ba mën a euh, euh, waaw sëñ mooy li wax léegi rek yàlla dafa notale lépp doomu maanaam lépp lu mën a rek notale ko doomu hmm. jaam yàlla bi xam ne indi ko sax mu ñëw te daanu wala mu nekk ci yeneen xeeti ci kàttanu yàlla mbaaxam am na loo xam ne boo sëggee ci noppam tëri hmm. dugg ko rek danaan cocc dutu yëngu tooti hmm. yu bëree bëri ay muy feebaru jëmm ak feebaru ruu feebaru jëmm seen chirurgie bi mooy ki nga xam ne dafa am problème ci hémorroïde wala dafa am problème ci bopp bi métti wala dafa am problème ci tànk bi métti wala moo xam lépp lu nekk ci junni ji rek ci yaram bi rek loolu feebaru feebaru la waaye dafa am beneen feebar boo xam ne nag moom la sëriñ si tële muy feebaru ruu loolu nag ki ñuy wax Baye Seydou Kébé wala boog ñu naan Baye Amadou Ndiaye kooku moo ñu ko nandal ba ñu xam ki nga xam ne dafa am feebaru ruu faj ko man nga wuti ren man nga wuti li nga xamante ni moom moo di sunguf man nga wuti li nga xam ni moom moo di alxuraan waaye kaam feebar ruu moom kooku moom da ngay tëjoog sëriñ rek lan la déey nag nga xam ko muy secret boo xam ne ci dënnu jaam yàlla bi la nekk hmm. loola nga koy wàcce ci boppam bi rek incha allah ci kàttan yàlla nga xam dàqlu ko feebaram bi kon daal danañ faj ñaari feebar te ñaari feebar rek moom ci àdduna muy feebar jëmm ak feebar ruu feebar jëmm nag moo ëmb mbooleem feebar yi nekk ci jëmm ak ci xol ak ci ruu bu neexee yàlla incha allah sëñ Chouaib euh, mi ngi noonu Serigne Modou Ladiane mi ngi fii ci Sébikotane ay numéro mi ngi noonu di affiché ci bar écran bi lépp loo xam ne rek lu jëm ci wàllu kurus la tëju ak ñaan yàlla ak lu jëm ci wàllum xob euh, maanaam plante mën nga jokkoo ak moom ci numéro oohiya eh, am ñu wax ni ku koy jàng lu bari jinne da lay feeñu am ñu wax ni saaru jinne yi la maanaam ndax mën nga ñëw dikkal ci solo saar woowu ndax dafa dangereux ci ki koy jàng di gis ay jinne wala dafa am lu muy def waaw xam nga yow boo déggoo ci sama wax lu bëri sax man damay faral di indi sortu jinne bu nga wax hmm. parce que boo bindee sortu jinne ba yegg ci satatan gi hmm. satatan googu seen chemin bi boo ko ubbee nga dugal ci tur ki nga xam ne moo am jafe-jafe hmm. na ay secret yoo xam ne boo ko lépp loo xam ne jinne la wala seytaan la wala luy sonal doomu aadama rek foofa moom day daal di tàqalu moom neexee incha allah wax naa la am ne danañ ko liggéey càngat bu benn yoon la ko nit ki di jëfandikoo ci dundam maanaam càngat bi suñu julee timis ba pare lañ koy teg suñu koy teg diggante mook asamaan ci la ko doomu aadama naan ba kollam fees mu sangu ci mu tàqali ko lépp loo xam ne seytaan la wala jinn la mm. képp koo xam ne dafa wax ne wala seytaan wala loo ci jàng loo xam ne jinne da mm-hmm. mooy jinne loolu la a xam ba pare mm. parce que moom amul kenn kuy dox te doo ko gis mm. waaye ndax yaa ngi xàmmee lan mooy jëmmi jinne ndax xam nga la jinne di manifesté woo ndax xam nga lan la jinne a doomu aadama jinne mënul doom mënul doomu aadama dara lu dul doomu nekk koo xam ne bàkkaarkat la wala am moo tilim ku soroo tilim moom jinne mënal la dara waaye ban jinne moo la mënal dara sëñ Suhaybu bi am loo xam ne su ko wax ci télé hmm. dafa am loo xam baatin la am loo xam baatin baatin la parce yàlla dafa bind saayir bind baatin bind baatin baatin te loolu lépp nag wax dëgg yàlla ñu koy sante bàyyi chant kawe nga xam ne nandal nañu ba xam ko ba xàmmee ko wax dëgg yàlla waaye daal di wax ne hmm. jàng alxuraan lu baax la. Mhm. lu am solo la jamono ju nekk ma jox ay secret ci alxuraan. Mhm. lu mel euh, alam nasara lu am solo la ci ubbi. Mhm. waaye lu mel ni ki nga xam ne euh, nga xam ne lu am solo la ci kaaraange. course ak leneen ak leneen ak leneen kon jaamu yàlla yi mën nañ jàng alxuraan dafa am benn jaamu yàlla boo ku am xam-xam la. waaye ku am. maanaam dara jële ci wàllu yëngut mu ñëw jox ma benn tur yàlla ne ma boo ko jàngee da euh, liggéey ba jinne ji ñëw toog sa kanam waaye xam nga ki muy wax ak fekk na xam na jinne te mu nekk sama wóolare mu jox ma ko ma toog di ko tëri mu ne jinne ji mag la mhm. waaye nag jinne la joo xam ne karaw gaa nga lang ba ci su mhm. wallaay li si laay laay la laa waaye jàng naa ko jinne ji ñëw na de waaye moom la ko jënd ja woon ak la ma woon du benn kii jàng mbir ba gis la tax mu ragal mm. la mu tiit loola ci biir jëmam ji la génnee taxaw ci kanam mm-hmm. wallaahi la si laa ilaaha illallaah amul benn jinne bu jógee fa la ñëw taxaw sa kanam waaye li nga liggéey ci sa jëmm ji loolu mooy génnaat feeñu la mooy taxaw sa kanam bu fekkee àttuna ko rek mu def loola mm-hmm. moo tax kii liggéey ba naan da xalwa ba génn naan ba mu génnee ba léegi am mbott la fa gis te loola moo am te loola mooy woy ba mukk mhm. te képp ku xam baat xam baat ni baati nag mhm. nga xam lan mooy jëmmi jinne wallaahi ñëpp a ngi gis jinne ñëpp a ngi tase jinne ah. wallaahi la si laay laay la mhm. waaye ndax xammee nga ko ndax mm. xammee ko xam nga maanaam bu alxuraan waxee ne ñu ëpp ci nit ñi mm. gisuñu waaw xam loolu moom du man maa ko wax alxuraan moo ko wax waaw léegi soin bi doxal fii ci Sénégal soo gisee benn gumba da gis téeméeri junni nit yoo xam ne ñu ngi xoole gumba wuñ kon lu tax mu ëpp mu ne lu ëpp ci ñi dañoo gumba mhm. te am na lu alxuraan wax de man kaana fi asi ahma wa huwa fil axiratu ahma wa huwa ah, waadla sabila mhm. mu ne képp koo xam ne maanaam da nga gumba fii ci ah, na bu yomal xaamee da gumba ban gumba la wax muy koo xam ne demoo sëriñ bi la mhm. nga yàlla maanaam nga xam yàlla wallaay bu yomal xaamee noonu ngay réeree waatee yàlla doo ko xam ne maanaam képp yàlla nag xam leen ma njëkk bala ngeen maa jaamu sëñ Souhaïbou mhm. képp ku nekk ñun sañoo rek yëkkati micro bii di wax mhm. toobit sañu ta yëkkati caméra rek di caméra te fekk jàngu ko ba xam ko mhm. wala mu tarbiyu ko ba xam ko kon nit lépp lu muy def a def ci àdduna rek fexeel ba xam ko fexeel ba maîtriser ko bu defee nga mën caa kon ndeem nag lii ci àdduna ngay def ba xam ko doog koo jëfandikoo surtout nag yàlla mi nga xam ne nag soxla ne def leen ko doog koo def kon ñëpp a gis jinne waaye ndax xàmme nañ ko sëñ Mor la jaan ku tëjee ak moom ci kàttan yàlla nga xam mu woon la jinne nga xàmme ko nga xam ne yàgg nga mhm. mooy ne tarbee wuñ xamuñu yàlla sëlmu wax dëgg yàlla ay gumba mhm. na rek bu yomal xaamee na ngay gumbawaat incha allah euh, muy lu am am solo sëñ Modou Ladiane lu ñu àndal euh, ay numéro mi ngi noonu di affiché ci barre euh, li nga xam ne mooy nawet saa yuñ ko jubloo heure bii ñu bari dañuy génn ci sa naataango yi nga xam dañuy ñaan wala ñuy faj di wax ni deret dina bari ci euh, tuuru li dina bari li léegi ndax da nga am ay euh, musulaay yoo xam ni ku la seet si ci wàllu njabootam am nga lu ciy musal nit ki ndax bu nawet jubsee moom ñaari yu bari day ànd ak moom di ñëw ndax am nga euh, gàllaaj yu mel noonu le waaw xam nga jaam yàlla yu wax na nangam dana am. nangam dana am damay yaakaar ne am na lu ko ëpp solo. Mhm. li ko ëpp solo mooy nga fexe ba nangam juuju nga jàpp ne dana am. nga fexe ba indi lu ko saafara. maanaam lu ko saafara mooy nga ne ah nañ jàng kaamil wala nañ def nangam ji te bañ koy jublu ci seen jëmm ji mm. nañ ma jox nangam pour ma nangam loolu du dëgg sëriñ moomu sarax sarax boo ko diglee jaamu yàlla bi am na droit mu defal ko boppam am na droit mu wóolu soin bi jox mu defal ko boppam am na droit mu wóolu toog jox mu defal ko boppam waaye bu fekkee sarax bi da koy laaj ba pare nañ la ko jox yow def ko loolu du dëgg mm. loolu du sarax daal bu fekkee nag waa ji defal sarax bi moom na la mm. te na la sëriñ bi kat yow laa doyloo yow laa bëgg nga defal ma sarax bi ko képp koo xam ne gis na loo xam ne li lor la war ngaa génn war ngaa wax war ngaa joxe ay sarax bu fekkee ne lu dëggu la waaye bul ko laaj pour sa jëmm ji wax ko rek ka war a def mu toog fa mu def ko incha allah bu neexee yàlla ah. kon daal kaaraange lu am la am na ndomb goo xam ne ndomb tawféex lañ koy wax képp ku ko jot rek am na tawféexam mm-hmm. moo xam ci wàllu accident wàllu agression wàllu police lépp loo xam ne li lor doomu rek ndomb googu da ci muy ndooma tawfeex goo xam ne ñoo ko liggéey kon daal jaam yàlla yi war nañ mën a am tawfeex seen tawfeex incha allah muy lu am solo Serigne Modou Ladiane li ñuy àndal ay numéro mi ngi noonu di affiché ci a bàyyi xel waa léegi ci jox benn mu ba mu wax ni ma ah sëriñ bi de wax dëgg yàlla ba ma waxee li may wax ba pare ba ma ne sarax dani ma yaa koy génneel sa bopp du la euh, forcé ni la yow euh, faaw nga jox ma sa sarax ma génne la ko léegi dafa am kii moom ne dafa ma laaj ni ma Euh, dafa bàyyi soxna ginnaaw woolu ko nag ndax dafay njaaloo waaye xelam dalul ci moom ndax yu bari yi muy gis muy laaj ndax sëñ la jaan am na gàllaaj goo xam ne dafay dafay téye jigéen ci biir kër ak it da koy téye ba góor du mën a jëfandikoo waaw loolu moom yaakaar naa ne waxtaanoo nañ ci ci gannaaw damay wax ne sax nga xam ne dafa am doom mu ragal doom jooju muy njaalo am na lu koy wax loo xam ne da koy ko tafle ci awram kooku su màggee du njaalo am na loo xam ne mag ñoo koy préparé seen doom yi maanaam képp koo xam ne jox nga ko ko du tux du naan du sàcc te du taxawaalu beneen bi ci topp képp koo xam ne dafa ragal ci sa jabar am na loo xam ne nag ci wextanu ganaar dong mm, suñ ko liggéey wextanu mm-hmm. ko jëlee liggéey ko jox ko nga raxasee ko sa sàkkara sëy ak sa jabar mm. képp ku ko tiim du nekk góor su génnee dem nag mën naa am na loo xam jëlee liggéey ko ba nga raxasee ko sa sàkkara sëy ak ku ko tiim duutul nekk góor ba te li wax nii lu yomb la boo wutee ganaar indi rek ñu defar ko jox ko nit ki mu raxasee ko sàkkaram ku tiim jabaram dootu nekk góor waaye bu dem feneen mën naa nekkaat góor incha allah. mais mën na valable ci njaboot gi. <laughs> waaw mën na waaw bu fekkee ki ragal ci soxnaam la wax ki ragal ci soxnaam moom soo koy def da raxasee sa sàkkara mhm. pour jaxasoog soxna si bu fekkee ki nga xam ne nag doomam la mhm. mën nañ ko jox loo xam ne lu muy takkal xale bi xale bi da koy takk wala mu sangoo ko ku ko téem du nekk góor waaye aywa muy lu am solo Serigne Modou Ladiane fii ci Sébikotane xam naa wax waxaat bari wax ndax am na koo xam ne tey ji la lay doog a dab émission bi euh, ci wàllum euh, garabu kër keroog dañ cee waxtaan euh, ma wax la ni la daanaka bariwul lu muy am sëriñ di faj sax wóolu boppam jox la yow mi présente rawatina comme man mi nga xam ni euh, damay wax ni bépp sëriñ buy jaar fii ci GCB dafa am nu mu fiy jaaree euh, kon nag néew na sëriñ ni la kaay nga jël sama garab nga jëfandikoo mu mel daal fan yi sëñ bi dafa yoraat garabu góor gu doy waar waaw dafa am garab boo xam ne doon nañ ko wax fii jaam yàlla yi mu nekk garab boo xam ne bu doy waar la hmm. soñ soñ bu garab boobu waxuma sax ci wàllu góor kese waaye wax dëgg yàlla dafay raxasaale jëmmu doomu aadama bi hmm. naq bi lépp lu hmm. lépp loo xam ne dafa nekk ci biir garab la boo xam ne meew ko jëlee saan nga koy jël incha allah bu neexee yàlla hmm. sëñ Souhaïbou bu incha allah garab la boo xam ne ñu ngi defar po yi ñu ko war a def incha allah bu neexee yàlla hmm. te danañ ko hmm. la bu doy waar garab la boo xam ne bu fekkoon jaamu yàlla na ba tële sax ba mënutu dara ko jëlee dafay amaat te lépp dafa bu neexee yàlla ci gàncax gi lañ ko liggéey bu neexee am na solo euh, ñu duggaat tuuti nag jël vol dem ci réew sëriñ Modou Ladiane jamono ji may wax yow keroog doon nañu waxtaan ci mbiru ay këyit ak ñi bëgg këyit waaye dafa am ñeneen sëñ Modou la jaan ñoo xam ne dañ leen a naawatal naam defoon nañ ci émission mhm. waaye dafa am ñu ma yóbbante ni ma seen mbokk yi dañuy nekk bitim réew tak fa danañ am këyit nangoo ñëw ci réew maanaam ñu dëj leen mhm. ndax loolu tey ki seet si mbokkam am ay at mënta ñibbi bisi euh, mën nga cee jëflanteeg moom waaw jaameela bi nga xam ne dafa am jafe-jafe ci dañ koo dëj mhm. wala dañ koo liggéey wala moo xam lu mën a doon incha allah bu jokkoo ak ñun rek la ñuy njëkk a def mooy xool mbiram ba xam lan moo ko tënk mhm. suñ ko xamee rek xam lan moo koy tojtal pour génn ko fa incha allah mhm. day wax na bu benn jàmm yàlla dem ba na naa wala gisutuma fa ma war a jëm mhm. yàlla mbiram mi jeexul te mbiram mi du jeex ba mukk te it mbiram mi mi ko samp ci jëmi doomu yi kon daal képp koo xam ne am na jafe-jafe bu mu a doon ci wàllu Europe incha allah suñu client yëpp yu jëpp Europe lañ nekk kon ñu képp koo xam ne jaaxal na ak lu mën a doon bu ñu seetee rek danañ ko dimbalante ak moom teg ko ci yoon ba mu gis ci toofe incha allah mm-hmm. loolu daal dañ koy liggéey te dañ koy raxas ba mu set wecc parce mm-hmm. ni euh, semaine bu ne a ngi koy muy dimbalante ak yéen ci wàllu xam-xam euh, ci wàllu kurus ak ñaan yàlla tëju am ci beneen boo xam ne nag moom defe naa euh, xawan nga ko junj ci njëlbeen gi waaye dafa bokkoon ci ma bind muy wàllum samp te waxtaanoon nañ ci sëriñ Modou jamono bii ñu toll nii Euh, liggéey jafe na am na koo xam ne dem na ba am liggéey waaye lu ndaw a koy jëlee ci barabu liggéey kaayam ndax da nga amee luy samp nit waaw damay faral di wax ne xob bi li koy dugal ci pax mi génnewu ko fa mhm. am na xob bi ngelaw mooy ñëw mun naaw dugg ci pax mi waaye ngelaw loola su del si waatee mënu ko faa génne kon képp koo xam ne dafay xëccoo place mhm. moo xam ci wàllu président la wala wàllu ministre la wala lu mu a doon ci wàllu nguur gi rek wala nekk ci wàllu banque wala lu mën a doon ragal ñu jëlee ko fa ci kàttan yàlla baa xam ñu samp ko fa bu dee mbër mi nga xam ne dafa bëgg di daan su ñëwee ci kàttan yàlla baa xam ñu samp ko bu dee jaam yàlla bi nga xam nekk daal te nekk am te ndam bëgg taa jiitu bëgg taa des gannaaw suñu sefee ñu samp ko te yàlla dana ko ca defal ndam incha allah boo gisee ñuy indi sacrifice yi ñu def nga gis nag bi wala yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu béy bu ñuul wala bu weex tàll wax mën mm-hmm. mm-hmm. loo xam ne war nañ ko gëstu ji te xamuñ mm-hmm. a jaruñu incha allah bu neexee yàlla euh, kuñ menacé nag dafa gaaw léegi dinaa la def nangam waaw loolu moom day wax ne képp ku la wax sax ne dinaa la nangam nga gëm ko sax yàlla daf lay tëkku daf ko tëkk yàlla daf na képp koo xam ne maanaam bu uh-huh. su ma ñëwoon tëkku la nga gëm la ma la wax uh-huh. yàlla tëkku na ma man mi la tëkku waaye yow mi nga xam ne gëm nga tëkku bi yàlla tëkku na la waaye nag sëñ Modou lu am la de xam nga yow euh, bari loo wax léegi ni kenn du wax ci écran te man leer na ni moom sëñ Modou jàngi nga am nga xam-xam boo xam ni doo ko wax ci écran doo ko waaye jàng nga ko mm-hmm. lu gaaw lool ci éliminer waaw am na léegi nag soo ay bu dañ koy tëkk wala ñu euh, tëkku keneen ni ko dinaa la faat képp koo xam ne tëkku la moom mi lay tëkku dama la ne mm. mm. la si wallaay la si laay laay loolu yàlla moo ko jox jaam yàlla yi yàlla moo ko secret yoo xam boo ko jëfandikoo wala tur yàlla boo xam boo ko liggéey képp ku la jéemal billaahi la si laay laay day génn léegi oto fël ko mu faatu mhm. wala mu génn léegi damm nit ki lay tëkku xamul dara. Mm-hmm. sooy bu ku xam dara du tëkkuwaate. parce mm-hmm. que alxuraan karim bépp sëriñ bu taxaw naan dinaa nangam dinaa ko def nangam. waxul dëgg day fenn te xamul dara. Mm-hmm. ku xam dara du tëkkuwaate. ki xam dara dëgg day xam la mu xam toog te te xam ne moom li mu xam bu ko naree utiliser bala mu àgg yàlla mën na koo faat. kon ku xam dara du tëkkuwaate képp kuy tëkkuwaate rek xamul dara loolu moom maa wax sama ci kaw incha allah. ayca ci ñaari mu jékki-jékki doon waxtaan ak ab coroom appel vidéo euh, si na bagage mu génn ca biti mu xëy xëy ñu saam ko ci réseaux sociaux yi euh, xewit woowu am sëriñ bi léegi nan nga ko gisee da ngay gis waxtaan ak coroom def lu ko neex nga jékki-jékki gis vidéo ba ca naa lay wax ne yenn saa yi ba may jëflante ak nit dama naan ko yàlla amul lu ëpp doomu waaye yàlla amul lu ëpp sàkkara doomu aadama bi doomu aadama bi warul foye sàkkaram mhm. ak tey kuñ fiy tagg rek wala tey ko xam ne rek nit ñi ñu ngi lay jublu tey ci moo xam ku jigéen la moo xam ku góor nga fa nga bàyyi ko mhm. kon doomu aadama dafa war a respecter sàkkaram na nag njuum na ko yedd waaye nañ ko ñaanal mhm. xam kan faaw mu xàmmee jëmam ji jëmmi doomu aadama mi nga xam ne moo la sàkk teg la na yow laa wuutal sama bopp ci am ne daal wax dëgg yàlla ay caaxaan la da ko jaam yàlla moytu ñu ngi koy ñaanal yàlla rek njuumte gi mu def mu bañ koo dalati tey nit ñi ñu am ci comprendre incha allah waaw xam nga ku nekk ci ñun rek am na loo xam ne tey sëñ Suhaybu bi bu ko yàlla feeñaloon ci sa jëmm ji nit mhm. xam ne nit ñaa ngi koy ñu ngi koy tëgg taw wallaahi am na loo xam ne bu feeñoon ci moom nit ñi bakku kon daal yàlla moo njëkk sutaal doomu aadama kon ñun doomu aadama nañ sutaal suñu bopp incha allah aywa ñu mujjee nag euh, ci Ousmane Sonko euh, jamono ji euh, wax dëgg yàlla mbiram wóoragul ñu bari ñu ngi naan campagne baa ngi bëgg ñëw ci wàllu local yi waaye ba léegi mi ngi amee ak euh, justice yoon ndax nee nañ ko euh, weeru jot na ñëw présenté wu ni mi ngi ci réew mi euh, mu mel ni sax wóorul ndax élection yi ñu jëm sax dana mën a def campagne am parce que mën a dem ba ci biir ñu daal di koy galgal ak it local yi ñëw coow laañ commencé bari ban jàngat nga ci def waaw waxoon naa la ne Sonko moom mbiram du yomb du yomb waaw mbiram du yomb te lii ngay wax nii hmm. nañ ci bàyyi xel jaam yàlla yi man maa ko wax waaw xanaa ñu jéem ko te duñ man waaye danañ ko jéem a ba nga xam ne du bokk ci mbir lu ci mën nag ñoom danañ ko def mm-hmm. xañ na nag mu am xañ na mu ñàkk am parce que waaw danañ ko jéem moom danañ ko jéem a fakkatal xañ na nag ñu jéem ko nag askan wi jóg wala moo xam ay jafe-jafe am ci bañ bàyyi ko waaye daal moom na bàyyi xel ne moom mbiram moom du yombee noonu incha allah bu neexee yàlla yàgg nañ ko wax fekk gouvernement bi mi ngi taxaw ci kàttanu yàlla mbaaxam Sonko moom du neexal leen maanaam teer dëgg lay doon pour mu jot suñu mu bëgg a yegg incha allah bu ne waaye mbiram moom dara du ci yomb incha allah mi ngi noonu mbokk yi mi ngi noonu tey lii la indi woon euh, sëñ Modou ñu bàyyi la nga tàggoog internet yi euh, lan ngay jeexalee sooy bu ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di yeesalaat suñu kóllëre ak yow wax dëgg yàlla ñu ngi santaat yàlla bu baax ci xamante bi ñu xamante ak yow ndax am ci yokkute waaye am ci mbégte waaye gën cee dooleeku ci njub danga ragal a jubadi kon wax dëgg yàlla ñu ngi lay bëggee di la ñaanal yàlla mu dëgëral sa taxawaay di ñaanal toog mi nga xam ne moo nekk ci euh, li nga xam ne moom moo di technique bi mhm. wax dëgg yàlla moom nekk suñu wóolëre mhm. nekk suñu xarit mhm. waaye di ñaanal ki nga xam ne mooy giri nga xam ne suñu ànd wax dëgg yàlla yàlla rek moo ko lal te nit bu la yàlla booleeg moom ngeen ànd te yàlla tax nit jéem ci lu nekk ngir mu yàqu wax dëgg yàlla lu sant yàlla la kon maa ngi lay gërëm bu baax a di yeeslaat suñu colère ak yow di yeeslaat suñu colère ak mboolem ñi xam ne ñoo safoo seen bi nga xam ne moo di CCB di yeesal suñu colère ak ñëpp ñi xam ne rek ñoo safoo Walfadjri nga xam ne ñun fa lañ bokk mm-hmm. ndax télé boobu télé waa Saloum la ñu gërëm ñëpp daal di siyaar ñëpp di ndokkel ñëpp di wax ne képp kuy seetaan émission bii rek wala nga safoo seen bii di CCB wax naa ko mm-hmm. na ngeen abonné te xam ne lépp loo xam ne lu ñu di siyaar ñëpp di wax ne képp ku nar a ñëw ci ñun rek yal na fii nga war a fajoo yal na fii nga war a wéree waaye yal na fekk ne sa aajo la war a waaye képp ku nar a ñëw te loolu du am soin bu yal na yàlla dox suñu diggante ak moom ñu gis waaye yàlla bu ñu xam yàlla bu ñu jëflante ak moom yàlla la ku sañ la tam moo ne a ma ñaan ma may la ñu ngi koy ñaan ni képp ku nar a ñëw tu aajom du faju yàlla na dox suñu diggante ak moom yàlla mën na ko sañ na ko def ñu ngi siyaar ñëpp du nuyu amin waaleykum salaam wa wa barakaatu gërëm sëriñ Modou Ladiane moom tamit jaajëfal ko ci euh, oyofam ak baaxam ak ñun nit ñuy dimbale suñu liggéey parce que man wax naa leen ni leen euh, bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne tey jafe-jafe yi sénégalais di dund ci bitim réew muy sëriñ yi leen di nax ak yuy jël seen xaalis yi ni man dama ci jot ay réclamation yu bare bare bare waaye moom nag gàcce ngalaama bañ dalee liggéey ba léegi yàgg na kenn mësul ñëw ni ma sëñ bi jël na sama xaalis ba pare ni mes jotatuma ko moom wax na leen ko nee na maa yor samay téléphone ci sama loxo ku ma woo mën ngay jot mën ngay jëflanteel direct ñu ko ci sant nag bu baax di ko ci gërëm ndax bu demel woon rek ñun ñooy gën a sonn euh, gërëm ko bu ko gërëm Abdou nga xam ne moo doon réaliser émission bi mi ngi fii nag ci Sibi Xutaan ay numéro mi ngi noon di affiché ci baaru